Mbengue Ndiaye jiite HCCT. Mm-hmm. Eh, mu wax euh, statut spécial. pour ville de Dakar muy mairie bu Dakar euh, am keneen koo xam ne déggoon nañ ko mu annoncé lu mel noonu jëm ci euh, nommer le maire de Dakar par décret da ngeen bëgg egg foofu pour ak seen est-ce que yéene la boo xam ni gouvernement bi daf ko am pour pour pour Ndakaaru. loolu de ni nga koy liiree man noonu laa koy liiree ci presse bi. Euh, Aminata Mbengue Ndiaye nag euh, suñu yaay ju baax la nekk présidente au conseil des collectivités territoriales. Mm-hmm. xëy na xalaatam bu mu am la joxe ko. Mm-hmm. mais parce que ci li ma dégg commentaires yi ñun ñee ngi jàpp ci du démocratie recul démocratique te am na loo xamante ne dama jàpp ne que rek bu ñun ñi dem. gaaw a def ay commentaires ci loo xamante ne xëy na euh, kenn amul les tenants et les aboutissants. Mm-hmm. leneen li nga xam ne aussi bëgg naa ko wax. Mm-hmm. mooy su ñuy wax statut spéciale pour Dakar euh, képp ku ko wax rek xëy na am nga lu la inspiré. Mm-hmm. pour nga wax ko. tey boo demee par exemple Abidjan Côte d'Ivoire yooyu am na fa mooy ñuy tuddee ay district Mali bi am na fi. Ah, moom noonu la ko expliquer sax ci exposé. ak ak yeneen mais li ma mën a expliquer. <laughs> Mhm. mooy euh, tey su ma duggee ci collectivité territoriale. Mhm. nuñ koy gérer li may wax nii rek c'est par rapport ak as toute expérience bi ma ci am. Mhm. nuñ koy gérer surtout la gestion des budgets et des ressources. tey le département de Dakar à dix-neuf collectivités. locale de plein exercice. plus la ville. kii bu nekk commune bu ne ñu ne la sa budget ngi ni yow yaa koy gérer sa bopp. ñu dem ba ne euh, commune bu nekk aussi am nga lu ñuy wax territoire. par exemple Mermoz fii la yem. waaw Sicap fii la yem. Mhm. Nangam fii mhm. la yem. léegi xëy na Amintan dem na ba xam ne que li tax mu koy proposer dama jàpp ne rek yaakaar na ne am na beneen mode de gestion bu gën a efficace boo xam ne dina gën a amal njëriñ askan wi. ci sama xalaatu bopp. mais loolu bi ñu ko waxee ci Dakar mën nañ ko wax pour jam ñaajo parce que je ne veux pas nit ñi wax def benn focus ci euh, ci ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay situation politique foog ne ay. mën nañ ko wax ci Diamniadio je m'explique non, oui, le maire de jam Diamniadio est de l'Alliance pour la République mm mais par exemple à Diamniadio où le pouvoir a euh, a fait un pole urbain mm -hmm. pôle urbain de Diamniadio def fa ay investissement am fa ay projet phare presque ñu war a wax ne que c'est la deuxième ville mhm. mais est-ce que avenir ville boobu aussi waruñu ko xalaat non man fi ngay li ngay li ngay wax li ngay wax nii ak li may wax vraiment d'accord naa ak yow ci li ngay wax jam non dama bëgg ñu ñëw ci dakaar ak euh, nomination maire am par décret maanaam Macky Sall bind décret pour fal mooy nekk maire u Dakar Macky moo la ko wax. non damay dama lay xam nga waxuma la Macky Sall moom ma ko wax <laughs> Macky Sall waxul ak man mais li ma lay wax. dama lay laaj ndax loolu ci dégg-dégg rek yow du deltu ginnaaw ci wàllu démocratie. lu tax ngeen bugg ko sukkandiku uniquement ci démocratie. mais parce que démocratie élection la. démocratie majorité la ak minorité. ñu dem ci ay élection ñu gis loolu ci Ndakaaru démocratie moo tax les dix neuf communes yuy composer le département de Dakar élection moo fay am ñu am seen maire. <laughs> loolu du démocratie. non laa la non. non wuyu loolu du démocratie lay wax. non non mais xam nga dafa am lu ma la expliquer léegi te mënoo koo comprendre dama la ne le département de Dakar a dix neuf collectivités territoriales les dix neuf collectivités territoriales mais ku ci ne da nga am sa budget am sa territoire. <laughs> bu ñu waxee waxu démocratie mais la démocratie démarre la ba d'abord ma jox la léegi exemple jam ñaajo ne la bu fekkente ne par exemple danañ ba gis ne que investissement yi am Diamniadio ak perspective yi fa état am dafa ne nañ ko def par exemple euh, statut spécial est-ce que bu boobaa dinañ ne recul démocratique la tout en sachant que le maire de Diamniadio est de l'APR ñaata ville ñoo am Sénégal Guédiawaye du ville ah ak yeneen ak yeneen. je pense que peut-être xëy na moom xalaatam la joxe mais même bu fekkente ne xalaatam la joxe aussi bu ko nit ñi gisee ci ci recul démocratique am na mhm. conséquence positives yoo xamante ne mën na ko am ci ko budget budget euh, ville de Dakar ñaata la euh, bari na ah? ëpp na ay soixante et quelques milliards daanaka quatre-vingts milliards mhm. presque mhm. mais quatre-vingts milliards yooyu bu ñu ko retourner par exemple ci commune bu nekk exemple laay wax de man xaw ma luy xewi ëllëg mais bu ñu ko retourné ci commune bu ne ñu séddal leen ko loolu est-ce que ku nekk du ko doon def benn doo gën a def fukk est-ce que loolu recul démocratique la. d'accord su ko defee wala condition de vie population yi la. d'accord dama lay wax rek. non non non li ngay wax. man sama analyse bopp laay def boobu noonu ah. waaw dafa gën a tayal xel yi. dafa mel ni par exemple seen objectif la euh, pour que dakaar euh, dootul nekk dootul dootul dootul dootul am maire. sa à dire am statut spécial. man de ma loolu non ni nga xalaate loolu rek mais man ci sama expérience bopp laay parce que tey boo ñëwee commune Diarekh su ma la nee fonds de dotation ren maa ngi am 23 millions fonds de concours maa ngi am 66 millions ku ma yokkal ma jël te lañ may jox ci askan wi laa koy defaat. tey par exemple les départements parce que sax mën naa faa dugg xam naa ne président conseil département yi loolu du neex ma wax ko mais c'est pour mieux étayer man li ma doon expliquer léegi tey un département ak budget mag lépp est-ce que ay intervention dina dina gën a renforcer li nga xam ne moom mooy commune yi c'est pas toujours le cas. en tout cas recul recul démocratique mënul passé par exemple loo xam ne depuis 1920 ci la Ndakaaru amoon maire fii mu nekkoon Blaise Diagne. ñuy demaat ba presque deux mille vingt ñu naan dañuy nekk fii naan dañuy xoolaat beneen statut spécial pour Dakar mais yaa xam ni nga waxee mel na ni xam nga li xew. xaw ma li xew exemple bi nga joxe nii mel na ni xam nga li xew. non non Pape man li ma la wax je vous l'ai dit par expérience par expérience laa la ko waxee xaw ma luy xew mais dama la wax ne que. cent ans après ñu bëgg ñu delloowaat ci ci leneen loo xam lan la recul démocratique ok képp ku fi la fal ok ñu ñu ñëwaat ci wàllu politique euh, euh, mbiru Karim Wade ak Khalifa Sall dafa mel ni seen amnistie euh, dañ ko proposé ci li nga xam ne moom mooy dialogue politique bi ñi bokk ci APR wala ci coalition benn bokk yaakaar ñàkk ko apprécier ndax loolu dégg nga ko ci dialogue politique bi ak ban gis-gis nga ci am ci lu aju ci wàllu xam nga dialogue bi nag ci laa bokk mhm. membre commité de pilotage mhm. mais nag code de conduite dialogue bi ci lu luñ la mandatewul amoo droit wax ko ci média yi boo bëggee nag sama appréciation. loolu tax ma lay laaj. personnelle sa appréciation personnelle. peut-être par rapport ah. à cela. Mhm. man damay wax ne que rek c'est une question boo xam ne man mënaguma ci xuus tant que ñoom seen li nga xamante ne moom mooy euh, proposition yi ñu war a andi. Mhm. ci plénière bu mag bi. ñu tënk loolu parce que ku ne fa ngay waxee sa xalaat. Mm-hmm. soo ko yóbbu ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi. Mm-hmm. ña fa toog ñëpp nag ci commission bi. opposition mu nga fa société civile mu nga fa majorité mu nga fa pouvoir public mu nga fa euh, secteur privé ñëpp a nga fa. Mm-hmm. mais ma jàpp ne que rek nañ leen wóolu. jàpp ne ay borom xam a fa ne mais aussi ñu am yéene ci réew mi ñoo xamante ne gëw ma ne dinañ wax loo xamante ne wala dinañ tënk loo xam ne day yóbbu Sénégal ginnaaw. Mm-hmm. question boobu loolu laa ci bëggoon wax. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord euh, muy mel ni kon bu bugguloo ci sori ba tey ci <laughs> boo bëggee. ok mu mel ni daal lépp lépp loo xam ni bugguloo ci sori di nga di nga ut sa sa alibi boo ci boo ci génnee mais mbiru Guy Marius Sagna moom di ko aborder parce que da ngeen bokk génération nekk ay ndaw.